asalaamaaleykum cheikh téléspectateur ben TV Sénégal ba légui nak ñing ci si magal gi waaye nak muno mëno ko wax ta démo si tailleur yi wax dëgg neex yalla ndax ñom jambar lañ si li ñu doon waaye nak ah, bu sañ sey yanjé sañ sey rafet yaakaar na ni tailleur yi ñom ñoko ñew ñëw jamono ji wax dëgg neex yalla ñing sen événement yag yàgg ñi nekk sen événement sax mais bu magal daal di jub ñom dañuy gëna a nekk seen événement ndax murit yi tiijaan ni ñom yi ñoom ñëppay ñëw aca sëñ bi no def ma ngi sant Serigne Touba ba nga jamm bu baax ba sante ahmadou Ahmadul Khadim tur ak sant bi. Serigne Saliou la njaay mooy sant bi. nga nekk fii Marché tey nag ñu fekk la sa di diwaan waaye nag ni niñ la fekkee daal dina rafet ndax lii su ma juumul ab bàyyilaat nga nga teg mu mel ni kenn du la laaj ba xam yaa ngi si wàccaayu màggal. Mhm. waaw sant yàlla gannaaw ba ñu santee sëriñ bi. wax ni allahumma salli alal mawsuufi bil karami wal juudi di santaat seexul xaddim bu baax a baax a baax ci tawféex ki nga xam ni moom la ñu defal. ñu tollu nak ci safar tollu ci tey le bisu premier safar ñu nek nak ci waccay go xamni waccay wàccaayu magal la te akup cant la safar nak ku ci nek xam ni bu deggmalé wacc giñ koy wajé moy joxe ay bernde ndax bernde yi sax ci magal gi lañ ko woté waye safar gi moy ubbeeku bi ñun nak ay teyer lañu ni ñuy waajalee màggal yi ko gis mo ngi ni di ñëw ay baylat ay yi di ay faqiya ngir murit yi jëm Touba ak soxna yi ñu leen ñawal ak laxasa yo xamanteni ni ngir day deppok dekk bi ndax dekk ba kat ki nga xamni moy borom dekk bi muy sëñ Muntaha Mbacké yalla na fi yàgg te ànd dafa am lu mu digle ci magal gi am lu mu ci téré surtout ci colk gi colk gi nak budé ci goor yalla yi kenn ku ci nekk da nga wara deppok li sëriñ bi digle ci dekk bi muy sol gu sel gu yew gu murite soxna yi tamit ñu xol ko gi nga xamanteni ni mo deug mu ak Touba ndax dekk bu sel la te Touba lañ wax dekk bi nga xamanteni nak dañ fa wara defaro kep ku waajal pour dem pour yakko fo mën na ni bañ nga war nga mëna baña dem. dañ ne Touba bo fa démé na nga sol lu sell waaye na nga sol lo xamné da fay daal yu na nga sol lo xamné da fay méngoog dekk bi waye am ño xamné dañuy dem Touba def ay daggit lok bayfaal yi mu melni ni wax nañ leen ko avant ño ñew Touba kon ñom buñu joté ak bayfaal yi ñoo leen tooñ. wa loolu de amna solo ndax duñ sax touba la ndax ndigal la ci bépp soxna bo xamanteni suñu borom da la ndigal diglé digle ngir nga mour say cër ci bépp soxna nak kon waxuma la touba touba nak même budul magal dañ fa soxla ak sel ak sol gu yew kon nak suñu borom la jóge ci jigen soxna so xamanteni da nga wara mour cër kon dang ko wara tam tàmm nga ag ci dëkk ba. jamono ji ñaw ñaw jigen mo ëpp wala ñaw goor ñi. waaw jamono ji ñu toll mom suñu mbokk soxna yi. ñoo ngi ñawlu bu baax a baax a baax waaye góor yàlla yi daa mel ni ñoo leen ëpp pas-pas ndax góor yàlla yi seen ñaw bu màggal gi mooy lu ci ëpp ay baylaat la ñuy ñawlu sëñ sooy bu xaftaan turki njaareem yooyu la ñuy ñawlu ay fax ya ban nga teg nii sëñ sooy bu nga teg baylaat wala ban nga teg. lii baylaat la. Mhm. waaw ab baylaat bu mag la àndal njiital ci biir. yii moom pour góor yàlla yi la. waaye bu dee soxna yi moom dañ leen di defal laxasaay boo xam ne day murite lool lool lool lool lool waaw màggal gi daal liñ ci mën a wax mooy ñun jekk nañ mhm. te incha allahu rabbi ñu ngi ñaan sëriñ bi taw tawféexal ñu bu baax a baax a baax ñun nag suñu mbokk téer yi képp ku fi ñëw ci mbokkub soxna yi indik ñaw mhm. di ci bëgg loo xamante ne nii demul noonu buñ ko ko ñawal nañu xam ne tuubaala la jëm ndax dañ koy ah, yow boo ko ci téyeer yi nga xam ne danga dañoo bëgg xaalis da ñëw ñëwal ma lii Touba laa jëm ñu daal di la ñëwal ñoom nañ encaissé rek ñoom déedéet man day ku ñëw ne ma Touba la jëm ñawal ma ñëw magal boo ma model modèle boo xam ne dëppoowul ak dëkk ba dana la ko wax laataa mala ñawal ndax ëlëk dama yaakar dañ koy layok suñu borom rek ndax man duma ko sol sama njabot duko def kon nak ñu ngi soñaat mbokki soxna yëpp ak mbokki goor yàlla yi le ak dëkk bi ñu fexé ko matale muy sellal te xamni ni lañ jëm dëkk bi ñi défaro nak kenn waru fa yaqo ñu fas ndax magal gi lepp fas la boy joggé sa kër ba ba ngay dem bir Touba dang ka wara fas loo ci fas sëriñ bi da koy nangu barke borom Touba. jërëjëf Serigne Saliou Ndiaye la woon fii si marché Zeng nekk tailleur bu mag nekk tailleur hors moo yor trois s couture ñu koy jaajëfal bu baax a baax nee naa leen nag nii rek la programme Mbayeen TV Sénégal di daal di doxee man di seeg sama man hors pair Alaaji Samba nekk en plus sama directeur de production beneen yoon si beneen plateau incha